internet du grand théâtre point tv ñu ngi leen di Nous Aminata Ribeiro lay ziar ziar bu a mais sans le coup tout va bien oui ça vous fait quoi aujourd'hui ngay inaugurer ce ce ce ce projet xam nga et tout xam découvrir si li nga xam ne moom parce que nee naa pas yi ba 100 découverte chaque jour je serai à la découverte de li nga xam ne ni tey jii nii moom mooy li ngeen di soxla te lii nag lu doy waar la Aminata mbir mi la café des hommes lan la. en fait c'est un travail de toute une année hein ça fait un an que j'y travaille j'ai quitté Barcelone pour venir ici j'ai depuis des années donc aujourd'hui c'est une grande fierté de venir réaliser mon rêve ici dans mon pays natal donc xol bu sedd rek. xol bu sedd mais mel na ne Aminata dafa demoon liggéey ñëw investir biir Sénégal. bien sûr ça fait en plus ça fait un an ma ciy liggéey ça fait un an. ça fait un an nga ciy liggéey. ça fait un an may jéem a réformer la maison. tey ñi nga xam ne ne tey ñoom ñooy monde bi nga xam ne dafa war a ñëw su ñëwee lan moo leen di xaar fii. mais plein de surprises ay xeetu baax baax franchement on a du un personnel très professionnel franchement moi quand je suis venu à Dakar leen laa lañ bëggoon wan on peut avoir bien le luxe tout en payant pas cher. Donc c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tout le monde et j'espère vous voir tous. Hein. Vraiment, quand, on est venu ici, vraiment, machallah, on est comme les joie parce que l'Unfigis, dafa nek lo xamni le nice la, lo innovation bir Mais pourquoi tay choisir tay Mermoz parce que jaay ñu ngi xaar tay nga ko ci par exemple pour ne pas citer un quartier et tout quoi. en fait moi j'ai voulu jouer sur le design mais aussi sur la qualité du travail xam nga que donc j'ai dit que je n'ai pas besoin d'être sur la route j'ai pas besoin d'être aux yeux de tous j'ai juste besoin de faire un travail de qualité donc peu importe l'endroit mënoon naa dem ba je mënoon dem nous Mbour je un centre ville.

mais parce que nous da ce pays aujourd'hui nous sommes jeunes c'est à nous de faire euh, euh, avancer le pays donc ça n'a pas de sens mais d'investir parce que tout ou tard damay ñibbi donc autant commencer par ici mais cela ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir d'autres filiales. Quand mën nañ xaar après yeneen perfecticisme Almadies un Nord Foire Grand Dakar feneen le bien sûr nous avons une vision de Barcelone donc j'ai une amie on est en train de travailler sur ça Inch'Allah. Barcelone

Bar, Franchement, je suis venu, j'avais, je connaissais pas beaucoup de monde. Je suis allé vers eux, mais eux aussi, ils étaient très simples. Hein, une porte. Donc, au passage, je m'en de remercier, de remercier toutes ces personnes-là qui sont ici. projet de est de là. Non, non, non. Non, bah, non, non. Sénégal, nous de faire avec d'ailleurs. Ah, c'est code. Ah, il reste code. Eh, mais, mais, mais, mais, inauguré, on peut dire que demain le job commence bien. Yagna, Djerna. nee naa lañ tey lu ma guddi rek moo tax mais su nekkul woon bëccëg lañ nekk kon ngoon bi dañuy liggéey. fii dañuy def ay pose ongle tout ce qui est cils make-up ak euh, li nga xam ne ni moom mooy parce man li jaaxal na ma affaire yi bii mooy petit fiche bii mooy petit fiche je t'invite à venir tester est-ce que doo ubbi baal bi sax yow. man man li jaaxal na parce que baxaw nee na ma.

dama jaaxal li nëbb moo ëpp li feeñ li li li nëbb moo ëpp li feeñ li gars yi war a gis moom dafa nëbb quoi gars yi dañoo gis affaire yi mais mais yi nekk si biir moo gën a grave. ëpp na yàgg na. kon na gars yi teew rek. gars yi teew affaire tarif du du metti. non non non c'est comme je dis parfois da ngay ñëw dugg ci benn endroit bu luxe da ngay ragal sax toog parce que tu dis que c'est cher moi je suis venu pour casser cette barrière là et dire que c'est pas parce que c'est luxe que c'est forcément cher donc voilà kon na gars yi ñëw quoi bu ñu ragal. nañ gars yi ñëw mais soriwul sax wetu IAM la nekk. wetu IAM c'est juste à côté. ban appel ngay lancer aussi ñuy jàngee IAM parce que kër gi seen kër la war a nekk. non ñoom yàgg na ñoom ñëw nañ ba imprégné wu yàgg na <laughs> je les invite tous à venir incha allah. bientôt on va dire bye bye 2019 et ñu dugg 2020 lay wax. donc 2020 bi maa ngi déjà maa ngi souhaité ñëpp.

moo tax ma ne la fan nga laaxal yaa gën a seetaan te temps am naa benn vidéo bu bu ma génn ak Souadou bu tudd nax na ma Souadou benn vidéo bu bees bu tudd nax na bu ma génn ak Souadou yow yaa gën a seetaan télé gëj ñu seetaan télé de gars yi dañoo ne saa waay namm parce que vidéo yaa ngi ñëw mais concert yi bagage yu grandiose yi nga xam ne ni gëjoon nañ ko gis ba xaw parce que ñu ngi seetaan télé ñu ngi gis affaire yi danoon nañ si ñëw mais gars yi dañ la namm non léegi rek incha allahu rabi ñu ngi si ay projet yoo xamante ne ne léegi gars yi gisaat concert yi léegi gars yi gisaat spectacle yi grand théâtre léegi gars yi gisaat concert yi si biir quartier yi parce que je pense que tey Sénégal loolu lañ gën a namm concert yi si biir quartier yi te ñu ngi ñëw. ba xam nga ni. love dafa nice. <laughs> dafa leer. soo boobu dafa nice. merci beaucoup. soo boobu job bi job fu mu jógee. waaw loolu moom nekk na loo xamante ne moom inspiration moom chaque fois moom ci borom bi rek lay jógee. yàlla moo lay sol. travers ko sa xel nga génne ko soit mu neex askan bi wala du leen neex. mais xanaa da ngeen xam ni Sénégal dañoo bëgg loof moo tax ngeen di ko ngeen di ko jox gars yi. non bu Sénégalais rek a bëgg loof de. Ah. ñëpp Jamaïcain sax bëgg nañ loof. yow sax bëgg nga loof. mais mais mais temps ñu gis benn fléau boo xam ne nii dafa am ci rab bi muy clash bi te tey jii nii yow tu es un monument sur le milieu hip hop tey loolu lan nga siy wax. waaw déjà.

mën na joxaat leneen gars yi balaa 2019 bi di jeex quoi. 2019 bi ah xanaa ba 2020 plutôt bon ñaanal gars yi rek jàmm yàgg Sénégal de toute façon xam naa ne ñun incha allahu rabi at bi ñuy dugg d' après affaire yu bees tàkk incha allahu rabi. xaar album te te. waaw mun nañ xaar album mun nañ xaaraat beneen single te du dabloon kese je pense que musiciens yu bëri maa ngi gis ñu ngi préparé ku ci nekk benn affaire pour janvier bi Viviane maa ngi gis mi ngi préparé benn album keneen ak keneen mi ngi préparé benn album et loolu c'est très bien pour la musique sénégalaise. c'est très bien pour la musique sénégalaise Baxaw ñu gis Baxaw il est très disponible si diggante nit ak nit ba tax na tey ñu fekk la fii si perfecticisme sa relation ak Adja lan la. waaw dafa nekk loo xamante ne ne jigéen bu nekkee jigéen boo déterminé ci li ngay def. Euh, yaakaar ne suñu présence tey war na mën a am benn point bu mu leen a apporter dañuy ñëw parce que au fait ñun ñëwuñu fi rek pour seetaan dañuy ñëw aussi pour xool li fi am parce que aussi quand même ay nit la ñu bëgg nañ xam endroit yi nga xamante ne bu ñu soxlawee dara mën nañ ko fi ñëw fekk si tey gis nga décor boo xamante ne c'est formidable xam ne gis nañ fi loo xamante ne tey góor da koy soxla jigéen da pense ne tey jàng na ci affaire ñoo naa gis fi loo xamante ne ay jën la expliqué na ma laa ci xamoon nga xam et voilà mi ngi nekk donc mu nekk loo xam. kon jeunes yi day faj. waaw jeunes yi il paraît que boo dugalee sa tànk peau morte yi la koy lekkal ndànk-ndànk quoi ba mu ba mu ba mu jeex. donc loolu man xaw ma ko woon man. ñoom loolu ñuy dundee. ah ñoo xam ne man de lii de man xamoon naa ay pépés laa ci xalaatoon. mais ñu ne ma noo du pour pépés pour loolu la ma ne déjà c'est quelque chose de bien. Bouba Bouba li nga dégg nga xam ne nii ki nga xam mooy Baxa wax na ko parce que nee na. fi nga xam ne ni tey Adja moo ko inauguré muy perfecticisme nekk na loo xam ne nii macha allah nekk na loo xam ne nii lu doy waar la waaye nee na jën yi nii ngay gis pour moom jën pépésu rek la si xam lekk mais nekk jën yi day faj soo si dugalee sa tànk mun na dindi lépp loo xam ne ni tilim la mun na den génnee lépp loo xam ne ni tey jii nii lu bokkul ci tànk bi la mais mais mais mais mais lii garaaw de. doy na waar moom. na koy expliqué mais naka la néew lii mënul ne. doy na naa ne doy na waar trop. mais sama conseil boo koy jox Adja lan lay doon na góor a góorgóorlu xam ne na gën a góorgóorlu mu gën a jàpp te mu xam ne ne que Sénégal moom euh, lépp am na fi tey li ngay dem di uti Europe am na fi na gën a jàpp liggéeyam et puis mu gën a moo koy permettre tey mu am lépp lu mu bëgg yàlla def na mu nekk si benn site bu formidable mooy Mermoz mu nekk site bu nga xamante ne ne am na accès donc école yu bëree ngi fii côté bi te gars yi dañuy soxla genre affaire bi surtout décembre bi ñaan yàlla mu gën a rek. Baxaaw musicien, animateur. Les deux, non, non Comme Comment vous avez géré les Sapeur, animateurs Ils ont à Non, non, non, Non, non... non, non, non, non, non, yow non, collège Sacré-Cœur je pense que ne non, man non, lu may def rek parce que day fekk ma bëgg ko donc su ma ko bëggee rek mais à quand show yi nga collège Sacré-Cœur xam nga période décembre yi waral loolu loolu ay événement yu doy waar la woon. événement yooyu dafa fekk na xam nga temps yéen a fa nekkoon léegi nag dañuy bàyyi génération bu bees bi eggali ko. jaajëf Bara ça a été un plaisir.